Euh, comme ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi digalee fas yéene dem ci mboolem euh, buntu kër yi njabootu Cheikh Mamadou Fadal gi bi nu ñëwee fekk nañ fi ay mbokki taalibi waaye fekk fi noonu ay mbokki laqarab waaye fekk feet ay daayira comme noonu ngeen ko gisee sëriñ yu Mbacke ñëwoon fii di indi ay ziaram ak lenn ci mbokki taalibe yi bi nu ñëweet fekk nañ fi ay dawaayir ñoom ñuy jébale seeni i comme noonu nga xam ne noonu ngeen ko gisee ci suñu image waaye taataan na nag suñu kàddu ci sëriñ bi su ko defee bàyyi ko mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi incha allahu taala. loolu wax si mbokk ne ni ma koy faral di waxee eh, sëriñ Abibu nag jàpp naa ne ñëpp xam nañ ko tey képp ko bokk ci lislaam ci yoonu lislaam xam nga ko waaye ku yaakaar sëriñ tubaax xam nga ko damay wax ni wallaahu yansuru nii wal xalqu tatba'uni fil barri wal bahri sa nafin bila dararin muy bon borom initiative bu am solo bi nga xam ni bokk na ci ñi nga xamante ne liggéeyloo na taalibe sëriñ tubaay yi ci biir Serigne Touba muy ci biir liggéeyu Serigne Touba bi muy Touba ca kanam di liggéey boo xam ni képp ko yor ay bët yaa ngi koy gis waaye ku lambet di nga daj loo xamante ni Serigne bi moo ko def ci initiative bu am solo boobu muy tubaa ca kanam nuuru daare ni kon taataan nañ suñu micro sëriñ bi kaddu yi lañ barkeeloo ci moom. waaw salaamaaleykum leen eh, mbokki ji di bokk taalibe yi maa ngi jéggalu kàddu yi xam naa ne wax ji moom dana xaw lool di nuyu sëñ Abdou Samad di ci liñ bokk ma ak ñoom taxawaay bi ñun ak jàpp bu mu jàpp démb tey doon ñëw lii moom lu ma tëre la moo tax moo doon sëñ Cheikh mu jàpp ni kàddu yoo xam ne ci rek waaye sant ak ngërëm ndax sama kilifa ñëw ma def loo bañ a def eh, dañu wax ndigal boo mën a defal boo mën defal te sëñ Abdou Samad kenn la ci ñoon jaar nañu ci bari foo xam ne di baatin li saayir la te jëru sax di ko wax ci biir nit ñi waaye xam na ko xam naa ko jàpp naa ko mooy itam xam naa jàpp naa ko mooy itam euh, xaj na nii waaye dañoo xam jote ko jotaay te it bàyyi souvent bàyyi xel euh, groupe information bi ak ak ak ak ak As-Samadiyya bii ay borom xam ak borom yi kii bare bari loolu wax nag initiative ak nanga man xawma loolu ndax man li xam mooy Sëriñ Tuubaa ko def doon ma dara Tuubaa ci kanam moom moo ko Sëriñ Tuubaa ko moom xalaat Sëñ Tuubaa la jibi Sëñ Tuubaa la moo ko nangul bopp yor ko boppam xaj na nag dana dana dana nit ku ne nag il ñu tudd ci dara waaye may nuyu sama mbokk mi teew sëñ Samb bu sa ñëw na fi rek teeg fekk bi ak mbokk fi teew yëpp sëñ sa am na sëñ Moussa Dieng ak mbokk fi teew yëpp ñu ñëw ci fi moom ci guddi gi mooy guddi laylatul Isra wal Mi'raj nga yëpp ñoo ko bokk waaye sëñ Tuubaa amaat ci xaalis boppam muy gën a àdduna Cheikh Amadou Fadal ñu bokk jullit yëpp ay bokk ñu bokk sëñ Tuubaa ñëpp rek sëñ Abdou Saad ñoo bokk lépp ci wàllu way juróom wu jigéen ak wu góor yi mooy sëñ Souhaïbou ak sëñ Fallou ñoo bokk sëñ Tuubaa waaye way juróom bu jigéen mooy sangu sëñ Fallou yaay sëñ bi la kon moom suñu doomi bàjjen la waaye suñu mag la suñu kilifal tim ci yëpp rek suñu doomi sëñ tim nag euh, kon ñu ngi ko ñaanal rek euh, mu gudd fan te wér ndax puso laa ko tuddee puso la ñëw mbokk Abdou Samad di taqale waaye taqale wut bëgg sëñ Tuubaa yëpp la jaxasool nga xam ne sëñ Tuubaa kenn la mooy garab gi kër yi ñuy wax yëpp ay bànqaas rek la waaye garab gi moom day fi soxla garab gi ndax yéen naan fépp fu mu yoon yi na am ñu daal wax ci yoon yi moom jaar na ko joxe boppam ak léppam ngi taxawu ko ba loolu am ci bokk jumtukaay jumtukaay bii ci la bokk kenn déggu ci loolu dégg kenn gis ko ci gis te defe naa ay kayam bari rek dina waaye sëñ bi rek loolu nga béy doo nga wax rek loolu mooy sëñ Abdou Samad sëñ Abdou Samad ku bari njëriñ la ku baax la maa ngi dégg benn bis benn waaye ci waaw suñu mbokki njaasa suñu mbokk njaasa yooyu naan si Abdou Samad maanaam <laughs> moom nu mu ko waxee sax ci maanaam euh, bu amee bu ñàkkee xub nu mu ko waxee waaw du am du ñàkk waaw waaw du am du ñàkk noonu la ko waaye am na benn benn benn waxkat bu ñëw tey léegi ñoo xam ne seen dëkk bàyyi fekk Sëriñ Tuubaa ndax ne seen genti dañ leen a yéene woon toroxtaane ñoom ñu yéene seen genti maam ya ak <laughs> fekk Sëriñ Tuubaa kon may woo murid rek euh, di woo ñëpp rek ñu gën a góorgóorlu ci liggéey Sëriñ Tuubaa taxam moo fi am njariñ euh, Sëñ Tuubaa lu bëgg la ñu ko yëg di bëgg ko euh, te moom xam ne ko bëgg Sëñ Tuubaa la bëgg Sëñ Tuubaa mooy ku nekk ñu mbokk yi wet gu doon rek euh, teral na la dimbali na la abal foqara laa koy wooyee def na ma benn acte boo xam ne bis màggal Sëñ Suwaybu waaye yooyu toog waxtaan xam lu ma waxte rek ma tudd ko rek la ko defee sax dama dama dama kii ndax man loolu doomu aadama ko mos a def loolu jur wax ndax boo ko waxee dañu mel ne kon dañ ko waaye nag dañ leen nëbbu teraanga ndax euh, wala tegtum shahadatu mu ñëkkatuma fi innahu asimun qalbuhu nga li daal bi wax nga ko waxoo ko da nga mel ne ab noon nga waaye lépp loo xam ne as maanaam des nga tëdd as gor man defal na ma ko te defal ma ko wax yàlla defal noonu loo xam ne simbi ay milliards loolu ma gën loolu ay moo gën ay milliards yàlla xam ne te ay milliards yi jox ma ñu ma jël lii la bàyyi milliards yooyu man loolu laa jël bàyyi milliards yi yàlla na la ko seeral xam ne maa ngi bëgg moo xam yàlla na ko yàlla dafa bëggam yéen itam bi ñëpp dañu ci a jàpp yoonu murid yëpp def ko mayaay yoonu su ko defoon dana ba a aljasiira te xam naa bu soobee yàlla dañ ci waxtaan maam moom xam ne daa kontaan ñoom boole ko ñoom su ko fee moom dana àgg ci ñoo xam am nañ ci xarala am nañ ci ay pexe naa ci waxtaan ñoom su ko fee classe gi nga xam ne moom ñoom ñëpp dañoo ñuy liggéey yoon moom fépp foo bayee baax na kon ñu ngi sant yàlla baax suñu saam suñu Abdou Sam moo fi yebaloon samedi bi yebal nañ ñëw fi ngir sànni ci ay kàddu ci bis far nga nga teew ko suñu Abdou Sam ne bokk moom nga bokk moom ndax mi ngi way juróomu góor moo ko way jur suñu Fallou maam maamam ji góor ji nga xam moo jur moo jur way juróomu góor bii moo ko way jur suñu ñu bokk ndey baay muy suñu Afia Bousso mu jur mu ko suñu Abdou Bousso suñu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Bousso suñu Afia suñu Afia suñu Abdou Bousso bokk ndey baay te moom maam moom ñu bokk ndey bokk ndey bokk bàyyi kon loolu mu amaat benn ci yàlla nga xam ne euh, maamam ju jigéen ji nga xam ne moo jur euh, maamam jigéen jur ji jur ma mm, laay métti ko jur ma laay métti nag ak njóogu métti ñu bokk ndey bàyyi maam métti bisu mi jur mook sama jaar bokk ndey bàyyi kon bu teewee fi si yàpp loolu si bisaat waaye juróom suñu mbàkkeen jur ko suñu mbàkkeen suñu buso bi kon ñun ñëpp dañu benn këram kër googu moo kër gii bu nekkee fii ñoo ko fi nekkal fu nekk ti moo fa nekkal rek waaw kon ñun sëpp ni ñu ko alxuraan di waxee ma sey kii numu tadi ba ma amruna illaa waahidatun suñu ko daf nit besa amuñu kon nag foo jàpp jàpp ko ñëpp ñu ko ñaan daal yàlla ko yàlla dimbale yàlla ko donc fu ma toll nga li may ñaan sa sutur yàlla yàlla ko dund yàlla ko dund sa tur wi tuuxuma abdu jële sama jëlaa yàlla ko dund yàlla ko dund te yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal te ndax bu fekk dund rek yàlla lu bari dana baax waaw la la sëñ sëñ sëñ bay jaxaroo sëñ bi rek sëñ bi dundal sa dund am na njëriñ diir luy dund yow yaakaar kenn tës loolu laa amoon a jox rek asalaamaaleykum wa <laughs> jërëjëf Mbacke xam nga dina diis nga wax wax ju am solo ji ñoom leen luñ ci tegaat ndax dëgg-dëgg day firndelaat rek kóllëre gi nga xam ne am nga ko waaye day firndelaat it li nga bëggee sëriñ Touba rek ndax li nga fi wax yëpp gënul sëriñ Touba ak it mbokk bi nga xam ne moom it yàllaa ko ci yemale nii nga ko leerale yaakaar naa ne keneen ku dul man ku dul yow mënu ko a leerale noonu kon yaa ngi wax ñu santal la mbooloo mi waaye mbooloo mi sax ñooy wëlbatiku yow di la sant yow di la ñaanal ndax dégg nañ sëñ bi li wax léegi sunu borom yàggal la fi sunu borom wéral la sunu borom yeggale si yéene te lépp nag ñu ànd ko ak yow ak bokki taalibe yëpp nag ndax ni nga mel ci sëriñ Touba noonu la bokki taalibe yi mel ci yow rek nag noonu la askan bi yëpp mel ci yow aussi noonu la sa mbokk yëpp mel ci yow ndax kenn ku fi ñëw seere yii rek lay seere kon nag yàlla na la yàlla may wér ak kàttan te yeggale si yéene. te sàmm la sàmm la njaboot gi di ziare sëñ Abdou Samad baax moom it di ko ndokkeel di ko sant di ko ñaanal bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf ok jërëjëf Serigne Moustapha Amar macha allah kaddu sëñ Cheikh Amar sëñ Cheikh Amar jërëjëf Serigne Cheikh Amar eh, kaddu yi am na solo waaye jërëjëf eh, Serigne bu Mbacke moom Cheikh Modou Fadal eh, kaddu yi am na solo macha allah waaye ndax dégg ngeen jikko yu am solo yi nga xam ne moom la seereel Serigne bi te ku ne xam na ni kon jikko yooyu rek moom moo nekk ci moom ndax yonent bi sallallahu dafa wax ni ki gën ci nit ñi mooy ki leen ëppal njariñ te ku ne xam na ne moom amal nañ mbindeef yi njariñ yàlla na sunu borom guddal aw fanam loolu wéral ko ak mboolem mbokk yi ñu fi fekk yëpp Serigne Moustapha moom doon jàppale ci si eh, lépp rek ñu ngi leen di sant bu baax waaye ak dawaa ir yi fi ñëw yëpp ak mbokki laqarab yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lii la leen seen télévision As-Samadiyya jëlale woon fii nga xamante ni mooy kër ñang ci kër sëriñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Amadou Fadal wasalaamualeykum wa rahmatullah